ginnaaw ñaawteef yi amoon ci atum 1988 foofee ca Mauritanie ci la jigéen ñi nga xam ne ñoo ñàkkoon seeni jëkkër daal di samp benn mbootaay ci 1991 ngir daal di xeex yooyee ñaawteef rado di mbootaay gi xeex bépp àq ak yelleef ci Afrique ñëw daal dooleel boobee collectif bi nga xam ne ñoo ngay wëy di wax seen naqar waaye tamit di wax ñaawteef yooyu ak faat bakkan yooyu lu ko waraloon. c'est parce que moom nit ku ñuul rek du moom kenn nag la ñu dee de. bari nañu ay militaire ay civil ñi nekkoon ci armée ñi nekkoon ci bare nañu ba bare bare bare seen kanam fees dell ak naqar ñoom jigéen yi ñàkkoon seen jëkkër ci yooyee ñaawte ñoo ngi naqarloo li ñu mënul porter plainte foofee ca Mauritanie ndax ay jafe-jafe ñun def plainte plainte Mauritanie gaa mënuñu def plainte parce que euh, signé nañu benn loi kooku gaa munuñ munuñ sax wax Mauritanie loolu moo tax ñu ñëw fii Sénégal. waaye ngir yoon def liggéeyam. bile mbootaay. déposé na benn plainte foofee ca cour pénal internationale. une a été déposée. ci njàppandalu maître Assane Dioma Ndiaye daal dinañ déposé ab plainte foofee ca cour pénale internationale ngir kuréel googee daal di mën a jël dossier bi ba delloo victime yi seen ak ak seen yelleef. apporter justice aux bi lay xeex dara taxu ko jóg lu dul ñi nga xam ni bokkoon nañ ci yooyee ñaawteef ñu fay ko ba mu mat sëkk. que cette situation puisse être aujourd'hui. faaw rek situation bi mën a ba ñëpp jot ci ngir ñu mën a yëkkati lu ñu duppee conseil de sécurité ngir collectif bi ëmb jigéen yi nga xam ni ñàkk nañ seen i jëkkër ñu mën a am dëgg. ay jigéen yu ñàkk seen i jëkkër ay ndaw yu ñàkk seen baay ak képp koo xam ne ñàkkoon nga sa mbokk bu la jigéen ci yooyee ñaawteef yi nga xam ne amoon na ci 1988 jàpp 1990 ci Mauritanie ñoo dal di dajaloo teg benn mbootaay lii di radoo jàppale leen si bu baax ngir ñu mën a teg loxo ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci yooyee ñaawteef ginnaaw fanweeri at ak ñeent bi ñu dooree xeex bi ñu naan justice na def liggéeyam si nit yi nga xam ni def nañ leen bépp ñaawteef metital leen ba pare armée Mauritanie daal di leen ra